xamante ça concerne les enfants Il y ci moom mu ñëw teg ci loxoom xam ni day fay bor boo xamante ne xëy na defal nañ ko ko parce que bu accès fii grâce à des enseignants su accès fii grâce à l'État du Sénégal bu accès fii c'est grâce à l'école donc comme le dit le président de la République que tout un chacun puisse retourner là où il est né pour pouvoir au moins participer à la vie de l'école yokk li nga xamante ni moom mooy pas-pasu élèves ndax élève bu nekk bëgg ngaa am prix kon lii émulation lay doon ñaax élèves yi pour ñu gën a góorlu pour ñu gën a nekk ci seen njàng également kon buñ ci amee kenn koo xamante ni boobu ba léegi fukki at yaakaar naa ni fukki at du ñaari lu yàgg la ca wolof dafa wax ne lu yàgg dëgg la kon Lamine en tout cas depuis bi ñu ko commencé ba léegi gisuñu ci mbiru politique gisuñu ci mbiru beneen mbumbaay wala gis ci boppam man loolu rek moo ci gën neex il a montré que il l'a fait uniquement pour l'intérêt des enfants parce que ren dañu bëggoon sax mu soobu mu xaw a oyof yëpp a maay waaye bu ñu xalaatee xale yi dañ naan fekk xale yi ñoo ko moom jàngalekat yi momu ñuko keneen momu ko xalé yi ñoko mom kon nañ leen ko delloo parce que daf leen di ñaax mais dina dimbali parents yi comme niko ko sa waay waxee léegi ci jëndum fourniture en tout cas tout ce qu'on peut dire mooy souhaiter leen bienvenue ak ñi nga àndal gërëm la ci taxawaay bi nga xamante ni boobu ba léegi yaa ngi ñu ciy jàppale ca woo ci bàyyiwuloo waaye tamit sant la ci li nga xamante ni niñ ko bëggee toujours noonu ngay waxee noonu nga ko noonu nga koy doxalee seetoo ci dara utoo ci dara bëggoo ci dara li nga ci bëgg mooy élèves yu góorlu kenn ku ci nekk war a xam ni kat doomu Kuli kii exemple la da ko war a jël exemple bu ëllëgee ñoom bu ñu màggee def ni moom loolu rek moo ñu ci amal importance donc di nuyu ñi fi nekk parents yek wa APE beeg e bek jangale kat yek ñom ñepp di len gërëm ci seen taxaway tank rek lay wax li ci amone solo ñi jiitu wax nañ ko ah xana di yok cant rek ci Lamine mi nga xamni doomu koñ bi la di def ci koñ bi te setu ci ma Samba setu ci ma Demba setu ko ëppale setu ku mu ëppale day def ci xalé yi te yalla rek tax ñukoy sant ci lool di ko gërëm di ko ñaanal fu mu yegg ren bu deene yalla na àggal fu fu ko raw di sant jàngalekat yi bis mu nekk duma leen di ko wax ndax ñoom it dawuñu daayuñu ñi ngi góor góorlu dégluwuñu ma sàmba dégluwuñu ma demb foruñu ay kàddu yi mbedd mi liñ leen jàngal daal ñi ngi koy tari ci xale yi te xale yi ñu ngi góorgóorlu kon nag ñu leen di sant ñoom jàngalekat yi commençant par directeur ba ci ki gën a tuuti muy président CGE muy man di sant ñëpp rek bañ a guddal ndax euh, waxtu wi daf ñoo xoj di sant euh, gan yi nga xam ni ñoo ànd ak Lamine euh, teew ci euh, bis bi di leen ñaanal ku ci mel ne xonn xam naa ni bari na fii ñoo xam ne ñii dégg nañ turam mooy xamuñu ko mais man mi xaw a bokk ak moom génération dama ragal sax moo mag lu ne def na ko ci Tivaouane ci lu baax ci nawetaan yi ak lu dul nawetaan parce que c'est un enseignant à la retraite di sant ñëpp leen di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah di wax rek merci à Lamine Diop vraiment ak ay bokkam ak ay collaborateur ndax li bim ko dalé def ba légui suñu école yi dafa am sax li ñuy wax émulation man xamna benn fii xam tim sama école elle est là l'année dernière quand on a donné parce que chaque fois bu diké dañ leen di jall ci ci école ci classe yépp ñu wax leen ñii dañ leen neexal parce que dañ leen ci mëna jang il paraît que avait dit la fille que l'année prochaine dina ci bok té yalla dogal na bok na ci muy c'est ce nga alors kon lolu mom lañ war cultiver fep lolu mom mo jara wujé sama dom amul moyen sama dafa redoubler damay Je ba sama dom ni ci d'ess. parce que qui limite? def ñun wayjur yi ñun enseignant ñu ci même du ci am dara waaye li ma leer ba leer ma mooy moom yàlla moo tax muy def li may bëgg a wax ni yàlla xam ne bëggul sax koo wax xam ngeen moom fi mu doon nekkoon ministère bi mu nekkoon yàlla da ko mayoon mu mën a dimbali nit ci mu am ndox sa défi dafay bari ba doo ko mën a fay par exemple ñun suñ boor bee sur 750 mètres la woon défi 4 millions ba mu ci jotee tuyau yi dafa ñëw ba suñu ko romb kon yannoon ko yàlla fayal li muy def tamit ci guddi na bi man xam naa ay relation yoo xam day jekki-jekki woo leen téléphone jaaral ci kër gi nga dikk muy la wutaal leen loo loo def nga dikk jëlal lii yóbbu ma participer ci gan yi te kooku ñaanu ko te kooku fonctionnaire la sax parfois parfois day nekk yoo xam mën nañ seen bopp mais da ci da koy def te yàlla tax kon Seydina euh, euh, Mouhamed Lamine yan na yàlla fay la bi jaay Seydou Jou nenañ nak xalé ku ci def directeur wax nako ko wala ku def kuy sakku xam-xam wala ci borom xam-xam day yag rek saw ñon dina am ko xam tim xam-xam dina ko yëkkati ba ci kaw alaykum wa rahmatullah wóolere la di nuyu jang yépp kat école 4 nga xamanteni ñom ñoma nyom permettre chaque année ñuy def li ba nekk dixième édition bi muy fukki at ñu koy def di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo suma xarit suma sœur madame ñaamaram nga xamante ni vraiment lii bu amee da ci taxaw taq ci ba nga xamante ni day mel ni mbiram la moo ko ciy gërëm ak ñi muy àndal ñëpp nag corps enseignant bi nekk école 4 yëpp ñoom maam say yéen ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu ki nga xamante ni moo fi teegal parent yi di Abdoulaye Sall di suma mag eh, di suma kilifa di suma lijaay di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni tey ñëw nañ gunge xale yi directeur wax nga dëgg ren dañ ni woon kat cérémonie bi na xaw a soft ndaxte ñi ngi xam lépp di bàyyi xel di ñaan di defi pexe di ñaan yàlla yàlla sottil pexe yi incha allah rabbi ñu ngi lay massaw aussi ndax yombul ñu ngi lay massaw di massaw aussi nga xam ñu ngi ci école bi yépp lii nii damay répété wu rek jàngalekat nag boo ko nee répété dina xam ni la répétition dafa am vertu pédagogique defuma ko ngir lenn wax ngeen ko yéen ñëpp utuma ci lenn xaaruma ci lenn damay delloo école li ma école jox damay gunge samay doom samay jarbaat samay rak kese utuma ci ku ma ci gërëm utuma ci ku ma ci xool utuma ci ku ma ci defal lenn moo tax at mu ne dañuy ñaan yàlla mu ñu suturaal bañ mën koo def sama yaram day daw bu may dox ci mbedd bi xale seen ma daw jël kayam ñëw ba dab ma tonton Lamine maa jël pee kooku am na lu muy xaar kooku lii ñuy def nii am na lu muy def ci moom delloo école donc li ñu école jox ndaxte nag ginnaaw yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ak suñuy wéjur bu ñu demee ba mën a am ay posture

yàlla xam na ko am na ñoo xamante ni jaaxle woon nañu ndax ni mu yéex a amee weekend passé rek am na ñu ma woo ñetti parent d'élèves wax naa ko maram di laaj naan waaw ndax dafa amul man leen bu leen ci am benn xel ñaar tant que ñu ngi koy fekke di ko tal incha allah lu ñu mën dinañ ko def ba ñëw école 4 ànd ak waa école 4 fexe ba xale yi nga xamante ni am nañu note yu baax ñu ñaax leen ci bu ko defee ñoom ñu gën a góorlu ci njàng mi gën a góorlu bu ëllëgee ñu mën a jàppale seen i lii rek mooñ ci tax a jub leneen taxuñu jub xale yi man yéen laa àndal yéen laa faral yéen yéen laay tiitaroo gën leen góor góorgóorlu jàng ndax jàng am na solo am na solo ndaxte mooy tax bu ëllëgee ngeen mën a am lu ngeen jëriñ seeni i ndaxte seen wéjur yi sonn nañ ci seen njàng mi ñi ngi jégalu ci liñ ko yeex a def ren moo tax dañuy jël engagement incha allah ba bu école tijjeetee buy tijji ci weekend bi ci topp ñu def ko incha allah dama tukki woon moo tax ndaxte le 19 bii lañ ma proposé woon mais boobu daf fekk jàppandiwu ma mais dinañ fexe ba bu incha allah bu buñ fi yàlla bàyyee beneen yoon te bu école di ubbi ci weekend bi ci topp ñu koy def ndaxte xam naa ni. am na lu ñu ciy def pour parents d'élèves yi samay jarbaat lañu may doom lañu ñu bokk kuli ñun ñëpp bokk bi moo tax lu ma mën ci taxaw leen incha allah dinañ ko def maa leen di gërëm bu baax di leen sant comme dafa xat kàddu yi du bën a bëri di gërëm rek nga xamante ni chaque année ñoom laay àndal bañ ko sosee ba léegi muy Mamadou Diouf Xond Fall Moussa Samb nga xamante ni ñoom ñoo may gunge chaque fois bu nuy ñëw ak nga xamante ni xëy na. bañ koy commencé bokkoon na ci ñi ma doon wax école 4 école 4 ndax boobu mu ngi fi woon muy madame Diouk ànd ak sëram muy Zé maa ngi leen di nuyu sëram Ndiaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di nuyu ñi fi teew ñëpp di leen gërëm directeur xamal ni ñi ngi sa ginnaaw ñi ngi sa ginnaaw te incha allah lu la mën ci jàppale bu soobee yàlla dañ ko def asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatu fàttewu ma aussi Khady Bousso mi nga xamante ni moom. momit parents parent d'élève mais surtout ku ñuy enfants de suñu sœur de suñu xarit mang